ay boy di gorom mbaajo déglu ma bu baax sëy yàgg naa tas tas na ñetti yoon ñu jubale leen lépp lu waay di wax ci sëy bu tas na sóoraale maanaam juboo ba juboo mën naa am sa audio bi nag boo yaakaaree ne sénégalais yi dégluwuñ ko yaa ngi nax sa bopp sénégalais yi déglu nañ ko bu baax mais la majeure partie duñ ci wax parce que li ñu bëggoon nga leen waxal mooy mbaaco du sëykat moom la ñu bëri doon murumtoo ci keppaar nga ñëw waxal leen beneen bi ci topp la majeure partie duñ ci wax ñoom archives yi la ñuy denc di xaar bés bu rafet parce que juboo naa am dégg naa la ci say wax nga wax lu am solo nee nga famille bi yëpp bëgguñu woon seen doom moo bëggoon ñu bëggale ko maanaam da ngeen doon màcc di ëf njabootu kanaara ga nga yoroon moom mu jiitu nga topp ci mbaaco bi mu nekkee ci kër gi bay ñibbi garab yam doon lalalee jëkkëram sax da koo ñori yóbbaale yow yaay wax ba léegi benn kudd mës na mu di ko seet mel ni dama ko gis yàpp benn kudd yow yaay wax ba léegi ñun dégluñ mbaaco de yow yaay wax ba léegi yow xëy yow nag bëggoo woon ku bëggul bëggul yow mosoo bëgg nga wax famille bi mosuñoo bëgg mais na gis nga yaay booy patt ga nga maye woon ba sëy ba di judd sa doom romb buntu kër yu bëri romb xale yu jigéen yu bëri dem songu mbaaco këpp ko million yu bëri may ko alal nee nga moo defar mbaaco gis nga patt googa nga maye woon man su ma doon yow wala nga doon sama yaay patt boobu lay continuer maye jël lépp jébbal ko loxo ci loxo yàlla mais yow bàyyeetoo ko yàlla yaa ngi fajal sa bopp léegi xeeb nga sunu borom en tant que yaay en tant que kilifa jaboot ñëpp man pour man lii du say kàddu waroo làq doom dóor doom te li ngay def nii tooñ tooññar bi la tudd yaa ngi yàq mbaaco actuellement nii sëy ba tas na sëy amoon na amatul juboo mën naa am nee naa la sëy tas na ñett yoon ñu di leen jubale lépp lu waaye di wax na sóoraale juboo ba doom judd na ci sëy màgg jubale baayam ak yaayam yow sa doom yaa ko jur mais xol bi moomoo ko moom mbaaco la bëgg mbaaco la yéene xaalisam mbaaco la jox ay million am kon yow kër gi la nga fa nekkee woon ak mbaaco borom xel bu la déggee kon yow juboo woon ak mbaaco suma ma doon yow na damay bàyyi yàlla mu fajal boppam ndax yàllaay léegi ji dukku dukku lay fayee danga koy lebal une mu fay la deux heures et demi munoon ngaa bàyyee yàlla yëf yi boole pat ak organiser wu. comme nee nga yàlla nga bàyyee woon mbàccu mais nag yaa ngi commencé di tooñ parce que dégg naa la ci say biiru audio nga ciy laal ay victimes yoo xam ne seen yoon nekku ci muy fereeru mbàcco yeeg famille mbàcco yaayam ak papaam ñooñu ay victimes lañ ci sëy bi seen yoon nekku ci donte ñoo jur mbàcco mais mbàcco moo yor jikkoy boppam kon loo wax yaayu mbàcco naan xamoon nañ ne bokkoo ci famille sëykat xamoon nañ ne lekk la indi yaa ngi tooñ te kilifa du tooñ yàlla bëggul tooñ ab jullit du tooñ mbaaco moo sëy si woon mbaaco moo takkaat ay bagaasam sa doom moo takkoon sa doom a maye baat jéem leen a toppatoo sëy bi à l'amiable moo gën ngay génn en tant que kilifa di génne kàddu yi di ko teg ci doomu jàmbur làq doom dóor doom la ñu koy tuddee yaa ngi tooñ teg jullit du tooñ kilifa du tooñ jéem a la defar te sooraale na juboo mën naa am